baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay xaw nañoo gëj a déggante nag du dara jàmm ak dañu nekk rek ci ay investigation yu intense ci suñu affaire u frère Philbert Sambou ak Baji Badji euh, dañu nekk ci ay investigation yu intense voilà xam naa dans les jours qui viennent incha

Euh, suñu waa ji euh, borom euh, sniper voilà donc dinañu indi vraiment ay firnde yu am am am am solo wala donc booleen leen gisee lii ñu bind nii tey c'est important pour ñu am ci benn taxaw seetlu bu ndaw

yoo xam ne dafa jóge ci Pape Alé Niang Pape Alé Niang moo yu jóge ci moom mot par mot la ñëw ci Pape Alé Niang buñ jógee ci Pape Alé Niang incha allahu rabbi ñu ñëw ci kàddu yi nga xam ne moom la soxna si aussi yëkkati Euh, Pape depuis sa cellule al euh, j'ai décidé d'observer une grève de la faim pour dénoncer la le torture psychologique et séquestration bonjour chers compatriotes à compter, à compter de ce vendredi 2 décembre, j'ai décidé d'observer une grève de la faim pour dénoncer mon enlèvement enlèvement boo leen ko dégué, Pape Alé Niang bi ñu koy jàpp nous oto crevé mu doon changé pono oto bi ñu jël ko keuf ko vous comme ni nous avons fait un garde corps pro yi Nous mu sur les allées Pape Gay Fall. Ma séquestration et ma torture psychologique dans les locaux de la sûreté urbaine. Mon emprisonnement injuste et arbitraire à la prison de Sébikotane. donc euh, Pape Alenia Mon message bobu mu ne tàmbali ko ci ajjuma dina def la nga grève de la faim manam dootul lekkati te li tax muy def loolu dafa gëm ne te àdduna bi yëpp xam ne jàpp biñ ko jàpp maanaam dañ ko enlever dañ ko kidnappé teguñu ko ci yoon te teguñu ko ci dëgg donc loolu lay dénoncé ba tax incha allahu rabbi tàmbali ajjuma bi passé muy ñaari fan ci réewu décembre ca la tàmbali loolu donc euh, moom Pape Alé Niang ba tey Euh, mi ngi ci situation yu doy parce que xam nañu ne doomu aadama bu lekkul dafa am loo xam ne daf koy compromettre ci sa santé ak ci sa système euh, donc moom Pape Alé Niang ñuy ñaawlu li nga xam ne moom lañ ko jàppee muy ay tappale ak jàppin biñ ko jàppee ñuy ñaawlu loolu te di laaj ñu bàyyi ko ci délai yu gën a gaaw mu ñibbi këram balaa vraiment li gën a ñaaw wala li gën a doy waar di xew parce que ñun ñëpp xam nañu déjà ne gouvernement Macky Sall bi rey gouvernement d'assassin la maanaam mën nañoo rey nit loolu kenn naa ko ndax bu ñu jëlee exemple bi gën a récent bu Fulbert Sambou ak euh, DJ Badji rek loolu day teunk lepp lo xam ne nañ ko wax depuis ay at c'est un gouvernement qui est prêt à tout pour rester au pouvoir Macky ak ñi andal ils sont prêts à tout pour rester au pouvoir donc lolu déjà ñun ñep xam nañ ko waye dañuy ñëw rek également ñaawlu li nga xam mom moom la Pape Alé Niang di dund tey ci kaso Sébikotane boobu légui nak aljuma la won lolu tay muy altine soxnam jotu ko ci weekend bi ndax ñom déjà weekend bi fofu dégg na duñ leen jot mais ci altine bi tay soxna si je me suis rendu ce matin à la prison de Khotan pour s'inquérir de l'état de santé de mon mari après trois jours de grève de la faim son état de santé se dégrade gravement il arrive à peine à marcher et à parler. Nous informons l'opinion nationale et internationale et avisons les autorités de la nécessité de prendre toutes les dispositions afin d'éviter l'irréparable Madame Nyan. Je vous Pape papa à dem na seeti ki nga xam ne moom mooy jëkkëram Pape Alé Niang ci kaso bu sebi xotaan te mi ngi yëgle aussi ne tey la am ñetti fan momu mu bàyyee lekk ak léegi te mi ngi yëgle ne loolu tax na ba santem li nga xam ne mooy wérgu yaramam wàññeeku na bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax di nga ko xam ci doxam manul sax à peine dox wax ji tamit na doole torop ku xam Pape ala xam ne bu la diggee est dans une situation critique te li muy dénoncé mooy jàpp caay ak samba boy bi nga xam ne lañ ko jàppee parce que Pape alenia te samba boy donc mom liko gëna metti ci japp bi du dañ ko jàpp waaye joxuñu ko convocation ñu norme yu lego yi dañu xaar ba autom am pneu bu crevé mu gën di changer pneu ñu kidnapper ko yob donc banditisme bobu la état Macky Sall bi di doxal ak ñi nga xamne ñom ñoo gëm Macky Sall duñu ay nit yu bëgg doxal deug duñu ay nit yu bëgg doxal yoon duñu ay nit yu dox ci deug wala nit yu dox ci yoon Nous lépp lu ñuy def banditisme lañ ko teg te lépp lu banditisme donc je pense que bu fekkee ne ñu ngi bàyyi xel war nañoo xel ne am lu doy ne mi ngi ci suñu dëkk bi comme ni ko di waxee lay instrumentalisation de la femme dama koy assemblée nationale bu Sénégal gis nañu tey li nga xam ne moom la ñu ne moom la ñu ne ñoom yayo jigéenu APR moom la leen sen délinquant bi yónni pour ñu def ko te damay fàttali loonu nit ñi toujours ma ne leen nit ku ne nit nga te doomu aadama bu nite bu ne war ngaa mën a jël say précaution ci yenn situation yi parce que nit bu mel ni maki Sall par exemple mu jël jabaram Marème fay Sall bokk ci ginnaawam bàyyi ko ci këram kenn mënul jot ci Marème Faye Sall kenn mënul jot ci moom xam nga ne Marème Faye Sall kenn mënu koo duma fenn mu jël doomam bu jigéen bi yóbbu ko mu jàngi biti réew biti réew ko yóbbu de mu jàng te defe naa loolu ñun ñëpp xam nañ ko amul dara lu ci làqu ah Macky Sall doomam bu jigéen bi bitim réew ko yóbbu mu jàng bitim réew nest te ñun ñëpp ñu xam men na Macky Sall bi men na Macky Sall bi ba léegi moom la ñuy ñëw de ginnaaw ba mu yóbboo doomam bi bitim réew mu jàngi moom men na Macky Sall bi ginnaaw ba mu jëlee jabaram mu sécuriser ko moom men na Macky Sall bi moom Macky Sall dafa jël jigéenu sénégalais yi mu tànn ci ñi gën a pànk ak ñi gën a vulgaire ak ñi gën a ñàkk solo ci senegal mu yóbbu leen dugal leen ci suñu assemblée nationale léegi nag laata sax ñuy ñëw ci li nga xam ne moom mooy li xew kii nga xam ne moom la ñuy tuumaal moom mooy tuumalaate ci suñu assemblée nationale mi ngi tudd Ami Njaay ñibbi ngeen jéggal ma tuuti rek gars yi parce que xam nga man damay bëgg ay nit yoo xam ne moom Samba Boy la man du affaire Samba Boy daf ma intéressé wul lu bari Amin Ndiaye ñibbi la tudd Amin Ndiaye mooy tur bi waaye dëkk bi mu représenté ñibbi foofu la représenté Amin Ndiaye ñibbi boobu defe naa ñun ñëpp gis nañu la nga xam ne moom moo xew assemblée nationale bu Sénégal duñ ci del siwaat waaye Amin Ndiaye ñibbi boobu bëgg nañ leen yëgal ne lii du premier incident te encore lii du premier tàppale ba nga xam ne moom la utiliser biir Amin Inibi avait insulté et violenté un Sénégalais qui lui a rendu son insulte. Elle a porté plainte et parlé d'une hypothèque, une hypothétique de grossesse. En mois de juillet, bi passé, moom même Amy Ndiaye ñibbi bi nee nañu accusé na beneen doomu aadama boo xam ne moom daf ko saaga violenté ko maanaam c'est une personne qui est violente nit la koo xam ne mën naa yëkkati façon kàddu yu ne di ko jéemale ci doomu aadama ndax dañu dem saytuwaat ay mbiram laaj fa mu dëkk xam ay mbokkam waaye moom Amy Ndiaye ñibbi mu am ko xam ne daf koo saaga violente ko kooku feyu moom mu dem porter borom plainte ci plainte boobu ci mois de juillet moom Amy Ndiaye ñibbi bi encore dafa déclaré woon ne dafa ëmb donc bu dee moom xamoon na ne dafa ëmb te mu am ay weer yu mu ëmboon mois de juillet donc bu ñu calculer disons que lu mu bon bon tey Amy Ndiaye ñibbi xanaa biir bi taxaw na ci kanamam certificat de médical certificat médical encore et elle s'est montrée elle ne s'est pas montrée au procès ñëwul ci procès bi a mu def ñu jours de prison laataa a dit Je assemblée nationale ay député du peuple comme nim ko waxee ni ko suñu frère Barthélemy Diaz waxee démb mu doon loo xam ne ñun ñëpp dañ koy ñaawlu te mën naa jur nag masiba ci réew mi boo leen gisee ñu koy wax dafa mën a jur masiba ci réew mi gaa yi la nga xam ne moom la Macky Sall nekk di def tey nii ci suñu assemblée nationale bii man nañoo jural masiba naaru laay ci Sénégal parce que banditisme d'État sans précédent moom la Macky sal nekk def ci suñu assemblée bi respecté wul doomu aadama yi respecté wul ak ak yelleefu doomu aadama indi na ay saagakat ak ay waxkatu ñaawteef ne leen ñu jàkkaarloo ak ay gor di leen wax wax bi fi mu gënee ñaaw ndeysaan rax ji dolli mu tànn ci jigéen bu vulgaire boobu ngeen xam bi àdduna bi yëpp xam bu àdduna bi yëpp dégg muy prostituée Las Vegas prostitution France la ko njëkke ndax ndeysaan am suñu ay naataango suñu ay mbokk yu ma woo joge France ñu ne ma Tunkara Macky yàq na suñu ay institution salfaañe na suñu àq ak suñu yelleef parce que dafa am ci loo xam ne ñun ci la ñuy sukkandiku pour firndeel lool ma laaj leen ci lan la ñuy sukkandiku pour firndeel ko ñu ne ma ku mel ni Kouramaki boo xam ne ñun xam nañ ko ñun moom Amérique xam nañ ko te nee naa leen jabaru mbay euh, freeru mbay gay fay muy Youssou la doon sëyal ndaw soosu moom moo doon sabab ñu delloo jëkkëram gi jële ko Amérique yóbbu ko senegal maanaam tacticien wu tappale la maanaam lépp lu rax ci tappale cette dame c'est une tacticienne de tappale donc moom même bandi boobu samba boy boobu am na ay mbir yu bizarre yoo xam ne moom la def muy nit ku doy waar ndeysaan Macky Sall mi ngi ko remplacé ak soxna Dieng Mbacké jabaru sëñ Modou Kara yan man ngeen xam déjà loolu xanaa soxna Dieng Mbacké la ndaw si tudd muy jabaru sëñ Modou Kara moom la ñu jël jox ko xaalis bu doy ak yeneen privilège pour mu céder assemblée nationale pour bàyyi fa ka nga xam ne moom mooy Coura Macky soxna Dieng Mbacké mi yàgg na ci journalisme yàgg na ci tas xibaar yàgg na nag te du xale ndax président Senghor noboon na ko fi président Senghor noboon na fi soxna soosu le temps président Senghor soxna si elle était encore plus jeune jeune journaliste mu Ludoïwar, lu doy ci suñu république mu l'ougnac lu Moudon xorom mu donne lu Sénégal yëpp ñu ngi koy ñaawul ndax comme moom ni koy waxee ak doomu aadama yu tëdd yooyu muy lim assemblée nationale bu Sénégal warul doon taxawaayu ndaw soxna yu mel noonu ndax soxna soo xam ne yow bu ñu bëggee ràññee li ñu gën a ràññee ci yow jaay sa bopp lañ lay mën a ràññeel kooku warta mën a taxaw ci suñu assemblée nationale ci suñu institution yi gën a kawe ci réew mi mu fay yëkkati ay kàddu ba koy wàccee ci ngeen war a xam ne senegal mi ngi ci guddi gu bët setagul waaye dafa am loo xam ne kon niñ koy waxee toujours ñu ne leen mbéjum kanam borom moo koy mën a fajal boppam Si vous ne Macky na len ngeen ay jigen ngeen wara dem fekki ay Vous war violenter verbalement ak physiquement ak émotionnellement vous vous trompez lourdement ndax na xamne doomu ko doomu aadama am na loo xam ne yow yako ko war a jombal sa bopp yow yaa ko war a bañ yow yaa ko warut nangu yow yaa warul nangu nit dugal la ci parce que notre pays va très mal suñu réew mo doxul suñu réew ci tànk yi mu du tànk yu baax suñu réew mi ngi ci guddi bu bër setagul gars yi leen ma une seconde ah merci waaw señ bi ma ngi jéggelu man nga ma wo man nga ma wo ni ma ngi lay déglu ni si benen ligne bi wa man nga ma wo voilà dañu nek ci moment bu critique ci suñu histoire réew moment bu critique la nekk ci histoire du tey ci Sénégal nga dem fu mel ni assemblée nationale bu senegal boo xam ne kàngam yu mag yi yëpp jaar nañ fi ñu indil ñu ay délinquant ay sambaboy ay jigéen yu jaay seen bopp ay jigéenu pànk ay fenkat ay tappalekat ay wurujkat ak ay warajkat tegal ñu leen ci ci assemblée nationale bi nee nañu yaayoo ñooñu la ñu indi pour ñu passer ñu suñu ay loi salaamaaleykum ça va merci ça va merci hmm. waaw waaw waaw waaw xam naa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 hmm, Aha. Okay. Okay. Mm-hmm. du yan yëg coba suba na ñoom ba ñuy Okay. léegi yow bu fekkee man ngaa taal man ngaa bàyyi sa téléphone bi mu tàkk comme dama nekk ci live bi nii xam naa dinaa pare fii ay fukki minute après man ma woo la ma mën a jël information yooyu comme ça ñu waxtaan bu bëree bëri dégg voilà jërëjëf voilà donc euh, gars yi maa ngi leen di jéggalu encore bu baax ñu ñëwaat rek ci li nga xam ne moom la ñuy def comme ni ma leen ko waxee léegi ñu indil ñu ay nit yoo xam ne amuñu benn xam-xam bu méngoo ak li nga xam ne moom la ñuy yoree réew ay jigéen yu vulgaire ay jigéen yuy saaga ay nit yu amul benn respect ci doomu aadama ay nit yu xamul sax nu ñuy demee wanag ba defaru ba mu set ñu jël leen ñoom ñëpp ñu dajale leen dugal leen ci suñu assemblée nationale bi Macky Sall nag fas leen yéene instrumentalisé parce que en réalité Macky Sall xam na dayoo bu jigéen am à travers le monde xam na ko donc boo gisee mu indi bandéemi yi ak nit ñu amul réputation yu baax yi ak nit ñu amul dignité yi taaj leen ci suñu assemblée nationale bi daf leen bëgg a instrumentaliser contre gor yi ñu nekk fa di ñàkk teggine gor yi di yëkkati ay kaddu yu baaxul di ko jëmale ci deru gor yi loolu moo tax mu baleen moom nee na leen c'est un gouvernement de combat moom lay taxawal man gaa duma ko tuddee gouvernement de combat gouvernement d'insulteur la Macky Sall taxawal ndax xaw ma ku ñuy combattre xam nga nit nit ay garabam nit koo xam ne tolloowu leen yemu leen ni ngeen di xalaatee tolloowu leen maxaama kooku lan nga yaakaar ne nga ko mën a def ba jële ba déstabiliser ko man taam donc dañuy waxaat ak Macky Sall rek kenn du ko ne mu delloo ci wat xalam ndax xam nañ ne lolu raw nako car bobu raw nako waye liñu bëgg wax Macky Sall moy mu xam bopam avant qu'il ne soit trop tard na xam bopam Macky xamal sa bop di def yefu nit di wax waxu nit bala muy trop tard ndax lepp lo gis ci aduna bi tay day jeex lepp lo fi gis ëllëg du fi nekk suñu ñaari député Yoyu, ngeen bëgg japp ak jigéen yi nga instrumentaliser maki di nga tal rew mi du yag dara waye bu ma nee taal réew mi moy yeen bandi dinañ leen tal du yag dara Sénégal du tak Sénégal dara du fa tak mais yow ak boy yi nga andal dara dina fa tak parce que maki jéego yi ngay jël yëpp moy jéego yo talé réew gaa amin jay ñibi la mois de juillet bi passé même nit kii def na même njaaxum yi nga xam ne moom lay accuser tey ñaari député yi may na sénégalais yi jot nañu ubbi suñu ay bët te ñu faire face à Macky Pape Alé maa ngi leen di fàttali ne ajjuma dañ ko woo pour l'entendre ajjuma bii di ñëw dañu woo Pape Alé dafa war a nekk ak ñoom dañ ko woo pour déglu ko ñuy ñaan sénégalais yi képp ku ci mën a képp ku ko mën a fekkee nga fekkee ko ajjuma incha allahu rabbi ginnaaw loolu nag ñu joxante dig daje rek ëllëg ndax tey temps bi bariwul comme ni ma leen ko waxee ba pare dañoo teel a tàmbali liggéey bi donc coono am na pour journée bi waaye bu soobee yàlla incha allah suba dinañ ñëwaat ak doole continuer li nga xam ne moom mooy waxtaan bi ñuy def waa asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu